décembre 1969 décembre 2019 boobaak léegi am na juróom fukki at Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma taxawaloon école bi nga xam ne dañuy jàngale nasaraan fii ci Touba ci Daaru Xuddoos ñi nga xam ne ñoo jot a jaar ci école bi amal cinquantenaire di bés boo xam ne dañ doon delloo njukkal Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma. bu delloo njukkal Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma moom mi nga xam ne moo formoon école bi en 1969 ko yittaloon mooy lan mooy doomi Touba doomi Touba mën a am ay diplôme doomi Touba nekk ay expert ci différents domaines yu nekk donc tey ji li école bi génnee na ci ay cadre vraiment gis na ne Serigne Cheikh quand même objectif ko atteindre parce que domaine boo jël am na ay nit ñoo xam ne fii lañ génne am na ay professeurs université am na ay médecins am na ay ingénieur donc yooyu yëpp fii lañ jàngee donc tey jii modèle Serigne Cheikh réussite la. ba sub neex bi nga xam ne nag ñu ko amalee ci Daarul Xuddoos ci teewaayu kalifa waa kër Serigne Cheikh Mbacke Gaynde ma am na kilifa yu bëree bëri yoo xam ne teewee nañ ko ñi jotoon a jaax ci école bi jàngalekat yi élèves yi ba ci seeni waajur amal nañ fa ay waxtaan yoo xam ne ñi jotoon a jaax ci école bi am nañu ay projet yoo xam ne fës yéene nañ koo taxawal lépp ngir gën a mën a ñoŋal njàng mi ak jàppale gone yi fii ci Touba. naka lañ mën a taxawoo école bi ban apport lañ mën a am ci école bi gis nañ ne boo ko seetloo tey jii xale yi fi dëkk sonn nañ trop jàngi chaque jour boo leen gisee ñuy dàqi kaar yi seeram day daw ñun fi nekkoon nag yàlla dogal ñu jàng ba ci fii mën a def tey jii pour développer école bi li ñuy xalaat mooy bëgg nañ def ay annexe ay annexe mooy lan jéem fexe ba école bi gën jege population yi gën a développer l'offre d'enseignement de l'école parce am na ñaari fànn am na ñoo xam ne ñëw def cycle normal sixième ba semb deux am na ñoo xam ne dañuy dem ca daara ba wàcc wala ñu jàng arab ñëw def deux ans wala trois ans loolu dafa am solo trop dañ ko bëgg a garder ko jéem a xoolal naka la defee ba am demee ay collège ay lycée bu ko defee université bi nga xam ne mi ngi ñëw mu am élèves yoo xam ne fii la jàng def seen cycle normal mën a dem ci université bi continuer seen jàng Serigne bëgg-bëggam bokkoon na ci tàggat ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw ñi ñu am xam-xam xam seen diine waaye xam xam-xamu àddina Serigne Cheikh bi muy tabax école bi dafa waxoon ne xam-xam xaw ma bokk ci nit ñi nga xam ne aussi boo jamono yooyu bëgg ñoon yóbbu seen doom aussi mën nañ leen comprendre parce que jamono bi am nañu xarit mënuñoon imaginer seen doom jàng tubaab parce que yaakaaroon ne bu ñu jàngee tubaab dinañ perdre seen racine dootuñu nekk ay jullit dañuy nekk beneen nit moo tax ñu xaw na bañ mais tey gis nañ ne ni dañu jàng ba na ar boo ko dawee ne ko ndongale mun la mbàkke donc loolu du ko wàññil dara moo tax Serigne Cheikh ñoom dafa teeloon a gis loolu dafa dépassé effort ñun nag loolu ñu ngi ciy liggéey bu ko defee jàng bi gën a développé Touba xale yi jàng am seen base religieuse jàng yeneen xam-xam bu ko defee bu ne mën a jariñ seen réew bés bi nga xam ne ñu ngi doon amal cinquantenaire école Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma amaloon nañ fa ay exposition doon xamale ak jëmm ji nga xamante ni liggéeyam ci yoonu murit yaatu na lool rawatina réew mi nga xam ne moo di senegal ndax bëri na ñoo xam ne jamono ji ay kilifa yu mag a mag lañ ci fànn yu bëri ci bi lañ génnee